continuer di dawal saretam ba barki dem sax ñu ngi leen di aaye sareti bu mu dawati ñu ngi leen di commencé di lor loolu mooy politique Afrique moo tax ñun bu ñu doon toog di wax ay nit ñaan sunu intérêt taxoon lii la woon parce que man dama fekkee Ablaye Wade lu ñu naan caga kenn du kon nax ñaari yoon loolu laa bañoon mu dal ma mooy benn nit jóge fale rek fal leen ma fal leen ma bu ngeen ma falee seen dund changé mais c'est le Sonko ne bu ngeen ñu falee dans deux mois seen dundu changé dem na ba xamul lan mooy réalité pouvoir bu ngeen ñu falee dans deux mois ngeen dund ajana ñëpp ne waay parce que yaakaaroon nañ ne Sonko yonent yàlla Muhammad la mënul miracle boobu mënu ko nekk tey lu président sàll bu mënu toon def Sénégal du benn Sonko wala Jomaay koy def lu ñuy continuer di def mooy li ma lay wax bi fu mu yem du Géejawaay léegi nga dégg ñu na la BRT bi andi nañ ko Kër Massar APS bi fu mu yem léegi nga dégg ñu ne yóbbu nañ ko Casamance. université ñaata université léegi nga dégg ñu ne tabax nañ yeneen université bato ñaata bato lañ am léegi nga dégg ñu ne jënd nañ yeneen bato avion ñaata avion léegi nga dégg ñu ne jënd na avion loolu mooy liggéeyu état kon ñi xamutoon mooy comme booy yi ngay gis nii booy boo si ne bonjour xamul luy bonjour politicien bi ñëw naan bu ngeen ñu falee ñu soppi seen dund nga ne ko politicien nan ngay soppee sama dund man dawalkatu saret yow ba falo loo may defaral gàtt ripaas bi ngay lekkale sa sare sax boo matu mu yokk dawalkatu càq-càq yow politicien bu ñëw siyow yow naan je vais changer sa dundu nga ne ko man càq-càq man nooy changer sama dundu mu ne la xanaa wutal la beneen càq-càq bu bees ban liggéey la lay jox ban liggéey ban ban yow marchand ambulant mu ñëw sett la yee marchand ambulant yi da ngeen a sonn lan nga may jox du la jox dara parce que mu ngi nii ñu ngi leen di commencé sax déguerpir mënuñu leen tabaxal ay centre commercial parce que du état mooy tabax ay centre commercial ay entrepreneur ñooy gagné ay marché ñëw dugal seen xaalis après am lu luñ ci am du état état lu muy def mooy wut ay ceeb wut ay dëwlin wut courant bu doy wut ndox mu doy fay gendarme yi fay enseignant yi fay militaires yi jënd ay lacrymogène jënd ay fetel jënd ay ordinateur pour police ñu def sécurité défense loolu mooy rôle état keneen koo gis mu tekki ci réew mi yaa góorgóorlu jaayi pataas keneen ki yaa góorgóorlu bay kon bu politicien bi ñëwee def beau parleur ñëw way on va changer votre vie ñii dañoo jaay alalu askan wi dañu ko paacoo patati patata eh diviser pour mieux régner lii nag boo ko doon wax démb booy dañuy saaga sanday ne la yow markatu taat nga léegi ñoom ñoo toog fii di jooy maa ngi gis benn azura commencé fan yee man bu may gis gaal gi di dem sama tool yee ma fi téye parce que il croyait que benn Ousmane Sonko falu na rek après azura day jékki-jékki commencé dund gu ndaandaat eh lu muy liggéey lan la azura azura ban lañ ko liggéey lañ ko jox te pourtant moo gën a sonn ñëpp ban liggéey lañ ko jox minute bu ne mu ngi topp ay sëriñ buub ak buñ ko doon jox liggéey bu baax tey du topp ay sëriñ buub doom cër bi sax pour te dire réalité politique ana tey seen doomi ñoom politiciens yi da ngeen leen gisoon ñu ànd ak booy déedéet tey boo yooyu fu ñuy dem tey ay agent GIGN ñoo leen di garder yow wala kaane bi doon xeex boo moytul bu ñu la ramassé amoo carte d'identité ñu defee rele <laughs> ñëwal tuuti dañuy waxtaan rek en tant que sénégalais ñun ñëpp ak ay ndaw. non amul problème comprendre naa non comprendre naa amul benn problème. <laughs> alors man li ma lay ma lay bëgg a wax rek mooy lenn quoi mooy nekk sànq wax nga lu am solo. mais nag gis nga on peut pas aller trop vite ñëpp tey jii nii. on a fait trois quatre mois le quatre bi passé lay nag quatre mois donc tey jii nii euh, lépp li nga xamante ne tey war nañ ko def pour que justice soit faite incha allah je pense que dañ ko def parce que il a donné déjà des gages ba mu demee kër fële grand théâtre wax na ko moom nee lu ñu ko def en personne moom si boppam dana baale mais li nga xamante ne def nañ ko Sénégal du ko du ko du ko du ko baale mais en quatre mois mënuñ def benn mënuñ conclure rek képp ki nga xamante ne reyal nga fi nit di ko layoo képp ki nga xamante ne tëj nga fi ay doomu aadama de manière injuste di nga ko lay ak doomu aadama yi képp ki nga xamante ne aussi def nga fi ay ñaawteef ay njombe sàcc suñu xaalis euh, def ay détournement di nga ko lay ak justice bi incha allah loolu moom ne vous en faites même pas ça je vous a question ah? ko fee waaw problème ñëwal. ñëwal maa ngi lay ziar frérot dama la dégg nga wax ne. quatre mois mënul pourtant fii nga nekkoon Sonko ne nañ leen jox réew mi même pas deux mois mu defar réew mi te dégguma la mukk nga taxaw ne ko waxoo dëgg mënul nekk deux mois pourtant tey yaa ngi toog ne quatre mois mënul nekk kon lan moo taxoon bokk woon ci Sénégal yi waroon taxaw Ousmane Sonko bi mu ne nañ ko jox réew mi même pas deux mois mu defar réew mi boobu yéen a ngi ànd ci ampleur boobu ànd ak moom ci dégg say wax nga ne quatre mois mënul nekk alors que nous on nekk mais daf ñoo jox wax ne deux mois même pas deux wax ko gor sa nga jug di défendre ay mensonges nga baal ma ak nag <laughs> non amul man li ma wax rek mooy nekk lenn justice du ñoo du du gis nga réew euh, Californie réew boo koy defar bul am état d'âme ci dara te bul def benn justice sélective comme ni mu fi doon amee jël ay doomu aadama singale leen nag après loolu lu muy lu muy lu muy jure ëllëg mooy gën a garaaw lu yow li nga bëgg faj donc ñun lu ñuy def lu ñu dañu am benn logique bu ñuy suivre logique bu logique bu ñuy suivre mooy lan def ndànk demee ndànk ba gis li nga xamante ne moom nga war a toppee nit ki nga jàpp mais tey duñ fi nekk benn def ay chasse à la sorcière comme ni ñu ko daan defee mu tourné mu mujj tourné au li nga bëggoon am si en terme de de de ja a nekk. doo doo doo gis koo xamante ne sàcc na dara donc di coup day nekk benn fiasco donc ñun lu ñuy def benn on on on on travaille de manière méthodique voilà dem nag euh, jàpp ay nit rek parce que am naa envie jàpp ne wala ni ñu ko waxee sànq ay damay dem jàpp policier parce que policier a jàpp wala damay dem jàpp non état du demee noonu état du fayantoo. état du parce que loolu après kenn xam kenn du xam après lu muy jur si si réew mi ñun lu ñuy demee mooy état continuité la. képp koo xamante ne tey jii état dara dara dafa daral sa kaw mënoo demaat encore di di ko retourner contre cet état là nekk lu ñuy def mooy def ndànk tey demee de manière méthodique xool ñi nga xamante ne tey jii nii euh, defoon nañu ñaawteef mais ñu jébbal leen justice justice àtte tey mënu nekk fi def benn benn justice revanchâtre maanaam di dem rek di jàpp nit ko xamante ne euh, deful dara wala di dem di singal ay ay doomu aadama non loolu ça ne se état du demee noonu état du demee ay fayantoo ñun lu ñu wax wax nañu ko lu leer dañu ne. képp koo xamante ne tey jii nii rey nga doomu aadama yi fii si biir Sénégal ci aura affaire à la justice loolu moom bu yàqamti loolu moom saa aura incha allah. justice léegi léegi léegi ma dolli la ma dolli la foofu. Mhm, ñëwal. tu encore jeune yaakaar naa ni tuuti. Babacar Seye il était un magistrat. magistrat. jàng ba yenu ay këyitam. magistrat conseil constitutionnel. kooku du cere soow. ba ñu jàppee quelques personnes yi ne woon moo leen rey ba ñu voté loi amnistie ñooñu déggatoo kenn wax si ba yowmal xiyam déggoo ma de xam nga Sénégal souvent dañuy yëkkati ne kii yax bu rëy la bokk kii kilifa la ponkal la boo yi duñu ay kilifa duñu ay yax bu rëy pour te dire maître Babacar Seye néew ma loon magistrat tribunal yi de conseil constitutionnel la nekkoon ñi doon joxe résultat élection yi ñu boom ko bañ ko boomee ci Sénégal am na ay nit yu lox yoon tegoon lox ba Abdoulaye Wade faloo 2000 danoo voté loi Ezzan xaw ndax yaa ngi fàttaliku loolu je sais pas loi Ezzan mooy bu benn Kaliphone sax taxawee ne maître Babacar Seye maa ko rey nii laa ko reyee yoon mënul si Kaliphone dara parce que loi la bu nu voté boobu ba léegi leen mu ma trente ans bu ma kenn waxatu si waxuma laak boo yi nga xam ne souvent dañuy naan kumba am ndey kumba amul ndey ñii ñooy kumba amul ndey ñoom maître Babacar Seye ñooy kumba am ndey sëgam ñoom seen loi la nu mën a voté kenn waxatu si borom kumba am ndey yi borom yàq yi ponkali kilifa yi ñoom lañu ñu mën a voter loi kenn waxu si waxuma la ak néew di doole bi seen yaay jaaykat fonde jaaykatu xaal yi ñii mënuñoo wax lu nguur di dégg pour te dire en politique ku dee yaa perte Mamadou Diop en 2011 nii la doon taxawee ma ak ñoom ñii. Kali nga baal ma. ki rey di nga ñëw avocat s'il te plaît dama koy daana rek. voilà en 2011. Mamadou Diop ba ñuy julli. moo ne allahu akbar allahu moo nodd ñu julli manifestation bi am ñu janoo police yi auto moo jaar si kawam auto police en tant qu'un kan moo taxoon muy xeex pour nañ fi jële Ablaye Wade benn Macky Sall falu Mamadou Diop boobu ba léegi tegaguñu benn policier wala benn général wala benn ministre de l'intérieur bu ñu yóbbu tribunal correctionnel bu Ndakaaru ñu ne dañ fay atte tey parce que moo joxoon orduna na oto bi jaar ci kaw Mamadou Diop bi dee fu mujj te kooku il était étudiant mujjul fenn waxuma laa jaaykatu xaal sëgam étudiant bu jàngoon ba may master ay droit am moo mën a perte bakkanam mujjul fenn kenn waxatul si ay turam waxuma laa boo yi y benn policier bu tudd Fodé xaw ma nan waa Kaffrine la dañ ko si rayoon Colobane ñi ko rayoon moom jàppoon nañu ñooñu parce que policier bi lañu rey ay mool lañ ko dóor ba mu dee ñooñu bañ leen jàppee bañ leen dóoree seen awre yépp lañ dagg tëj leen si kaso bi est-ce que génn nañ sax ba léegi pour te dire policier moom ku ko fa rey dañ lay tëj mais néew di doole bii di xeex pour politicien bi na abale bu deewee du mujj fenn ana yi deux autres étudiants ay Balla Gaye ak d'autres étudiants yu ñu rey kii kii bu bu Saint-Louis ñaata yoon nga ko dégg kan lañ ci condamné ku dee yaa perte est-ce que da nga mës a dégg fils du ministre de la République door nañ ko mbéj waxuma la balde mbéj est-ce que da nga mës a dégg directeur bi doomam sax ramasse nañ ko waxuma la dóor du yeewu toroxal de pour te dire ñun néew di doole bi rek ñoo perte te bu doon dañuy xeex ñun néew di doole bi pour nguur gee bu demee même bu dee jàppuñu police wala gendarmerie mais saaku ceeb bi sama papa di jënde vingt mille nañ ko àndi dix mille pour sax pour dire li ma doon xeex jar na ko parce que sama papa sonn na. saaku ceeb sam papa vingt mille la koy jëndee xaaral ma xeex pour boo fi tegee ñii ñu andi saaku ceeb bi dix mille même bu dee ñu sax police ba am nga gain de cause mooy sa papa coono bu mu doon def bu naree jënd saaku ceeb vingt mille dina ko jëndee dix mille même tey bu ñu jàppul ministre de l'intérieur wala jàpp police ba tey nañu wàññi facture courant bi di nekk cent mille ñu andi ko deux mille cinq cent bu ko defee yow mi bàyyi woon sa lépp dem xeex yi da koy jar parce que sa papa dina ah doom fierté nga de ni ma doon sonnee facture courant bu ñëwee waaye gàcce ngaalaama say xeex a tax léegi facture courant bi juróomi téeméer laay fay. eh xam nga fa la doon neexee ma am sœur bu jigéen nekk en état bëgg dem hôpital état bi jël ko en charge. ñu ne doom li nga doon xeex jar na ko parce que ay jamono amutoon état musul jël charge sa mbokk bu nekk en état mais grâce ak yéen jëli ngeen fi Macky sàll sa boo xuma la sonk falu na jël na ministre de la femme léegi femme bu nekk cintre demal hôpital dañu lay faj gratuitement ndax ministre de la femme moo ko res mais du mujj fenn ministre de la femme day fayeeku ay millions directeur yi fay ko seeni million te ba ñuy xeex ana ministre ba ana directeur ba donc ñun suñu xeex bi yëpp après lan la njëriñ pour ñoom ñu dugg di dund ajana ñun ñu continuer di dund enfer looloo am Afrique looloo am Sénégal te du mës a dëñ gis nga Europe bii ñu nekk rawatina France fii élection bu ñu jotee booy duñu xeex du nu ne monsieur le ministre nu tàccu seen yoon nekku si bu élection jotee daal la ñuy dem voté ji ñibbi seen kër te pourtant booy yi fii bu école di ubbi seen nguur day jox seeni ndey yi ne leen ñoo leen jox xaalis bi pour ngeen jëndal seen doom yi yëre wala daal la ñoo leen ko may chaque année fii jigéen bu wiru boo feebaree nga nekk si huit mois balaa ngay nekk sa neuvième mois nguur day fekk mu dugal ci compte banque ba xaalis lu toll ni téeméeri junni ne ñoo la ko may dégg nga ma de ñii dëkk si dëkk bi fii laa wax bokk wala sax nga am si dëkk bi chaque weer nga nar am doom neuf mois huitième mois ba dañ lay jox maanaam presque huit cent wala neuf cent euros muy téeméeri junni ñun suñu foofu ban ministre de la femme wala état nga gis mu jox suñu yaay wala suñu jigéen ñi juróomi téeméer da ngay gis nii nii nii am na ko bëgg a jégg yëmbal di matu amul lu mu jëlee taxi kon ñun nguur buñ koy topp pour lan la ñu nguur amal njëriñ kon moo tax jaru rey sa bopp foofu lañu yeewee askan wi kii dee yaay pet katu saret ba da ngay dawal saret jaaykatu fonde ba da ngay continuer dawal fonde jaaykatu mboq ba da ngay continuer di jaay mboq ñii nga xam ne ñooy ministres yi nga xam ne bu njëkk amu ñoon sax kër ñoom ñooy dem am seen i immeuble am seen kër fu ñuy dem Tiwaawoon wiiw wiiw wiiw wiiw wiiw fu ñuy dem Touba wiiw wiiw wiiw wiiw wiiw fu ñuy dem Réunion wiiw wiiw wiiw wiiw wiiw yow góorgóorlu bi boo yegee car rapide balaa ngay egg quatre heures de temps léegi ñu ne ñun duñu yeewu ñun nañu xeex ñun na nañu reyante ñun na nañu soxorante ñun nañu toog ci panel yi di saagante ñun patati patata kañ la Afrique di yeew bee di jaw yàlla na la yàlla andi Europe bu dee musoo fi ñëw boo ñëwee fi nga xool angle koñ yi doo fi gis benn boy di naan woy monsieur le ministre daf ñuy fontoo monsieur le président il travaille pas amuñu jot bii te pourtant ñii defaral nañ leen seen dëkk fu ñu bëgg dem foo nar def cinq heures de temps ci Sénégal fii trente minutes nga koy def ñii namuñu dara te amuñu jot ne merci monsieur le ministre amuñu jot toog si ay panel di saaga seen beneen moromu français ndax ministre bi wala président bi ñun foofu lekkuñu naanuñu suñu nelaw dayul nii nii nii léegi Touba inondation yi ñun foofu fees del te pourtant benn nitu Touba bu Kaliphone waxoon mu saaga ko léegi ki taxoon nga may saaga yaa ngi noonu am fa paanu ndox mënoo ko fa dindi eh, eh, ñu ne duñ yeewu kaa la ñu bëggante suñu biir ñun néew di doole bi politicien bi jox ñu respect bu ñu leen falee budget ministre mais mustala ministre xaalis boobu na jëm askan wi ministre de la femme day ñëw assemblée nationale ñu votel ko budget sangami milliards ñu dégg ko ñu ne on a voté ministre de la femme soixante quinze milliards jigéen ñi ñëw gën a torox Sénégal xaalis ministre de la femme bi fu muy dugg. mësuma gis rek ñu ne tey benn jigéen feebar na Sénégal ministre de la femme jël na ko charge xale bu jigéen bi feebar barki démb daadu wa xaw ñu ngi toog si TikTok bi di ko kettal et pourtant ministre de la femme mënoon na ñëw jël ko en charge ne kii jigéen la feebar na rawatina artiste la man ministre de la femme si sama budget soixante dix milliards jël naa ko en charge dama ko yóbbu clinique wala sax yóbbu ko Europe faj mais néew di doole yi après ñooy kolo kolo kii deux mille kii dix mille pour faj seen moromu néew di doole. te jamono jooju benn politicien bu doomam feebaree du fanaan senegal sur le coup ñu yóbbu ko AIBD mu yëg avion ñëw France faju ñun ñu ne ñun duñu bëggante ñun ñu ne duñu yeewu duñu bëggante duñu yeewu ministre de la jeunesse budget bi ñaata milliards la tey senegal ndaw ñee gën a torox kon ministre de la jeunesse budget milliard am yooyu ñu koy votel fu mu dugg fan la dugg ministre de l'enseignement ñaata milliards ngay dégg assemblée nationale ñëw na ni votel ko njàng mi dafa lafañ ba léegi doxul nga ñëw ministre des transports ñu ne votel nañ ne tant de milliards transport bi Sénégal boobu ba léegi mu ngi lompoñ doxul kon ñun sunu ministres yi milliards yi leen di votel yi fan lay dugg fan fan fan moo tax ñun Afrique bi mu dem ministre bu nekkoon université doon jàng dugg ci politique nga doon gis buy dem cag-cag lay yëg may ko un mois de mois immeuble am day taxaw huit huitam taxaw booy sama ginnaaw xool leen booy boo si gis xam ne dafa sonn xool ñu mel nii rek a dee booy yi tey nee nañ Sonko Diomaye Sonko Diomaye booy yi bëri tey boo demee seen kër kenn reeru kenn te temps bu ñu doon jël naan Sonko Diomaye Sonko Diomaye mënoon nañu wuti matt sax jaay ji ko am ci téeméeri dërëm ñoo ne yaay am tegal soom bi mais amuñu jot bi léegi nag lu gën a garaaw dañuy toog si panel yi Kaliphone sa nangam tànday waay dugg si beneen kawar awuskiti caaga nga waay mais saagal sa leader bi nga fal mu diggoon la ajjana te defu ko bul saaga benn Kaliphone defu la dara bul saaga benn awus defu la dara ainsi de donc avocat jëlal parole ñu dégg non dama bëggoon a wax. kii kii nii xam nga da nga doon. waaw kot su non léegi avocat mayal kot su mu daanal rek mu tàggu ko. ok maa waroon daanal Karim de da nga dama soxla fii kot su dafay yàgg. te daa am lu muy defi voilà dans vingt deux minutes damay julli. ok ok léegi kot su ñëwal. Euh, merci beaucoup Kali. sincèrement affaire comme li ma xëye woon sànq rek laa lay wax cest à la war a ñaanal xam nga lu tax xam nga tey aujourd'hui permettre nga nit bi nekk Pastef nit bi nekk républicain nit bi bokk feneen en fait en réalité image du Sénégal en miniature lii la war a doon mooy au moins ñun ndaw ñëpp ñu am gëm-gëm am benn pas-pas xam ne les politiciens comme ni ko Ousmane Sonko di ko waxee ah dañuy utiliser la preuve moom wane nañ dañuy utiliser tey da doon xas yenn ministres yi ci ay hôtel yu ñu daan dal et ñëpp gis nañ ko fal nañ ko mu toog fi pendant weer ñibbiwul këram ci hôtel la nekkoon ci galayaaba la nekkoon ci dund lu neex la nekkoon gis nañ ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye déjà def na plus de treize voyage bu si nekk coûté nañu cent millions ce qui fera plus de un milliard trois cent millions wu Sénégal boo xamante ne tey Ousmane Sonko nee na daa nekk en ruine mooy ñàkk xaalis amuñu ko et tout ça pourtant malgré tout ndaw bi moo ngi fële di kuyum kuyum suñuy njiit au moins ñu ngi génn di pasar pasare xaalisu Sénégal et pourtant ndaw ñu ñoo deewoon tey amul benn dee rek boo xamante ne delloon nañ ko ndaw ñi muy nàmpaay et tout fi dee ñëpp on les appelle martyrs après on les oublie seen cérémonie gis nga ay fecc la woon ay yeneen ak yeneen ak yeneen da ndaw ñi tàppe seen xol yi au moins ñu bokk am benn terrain d'entente pourquoi pas ñun ci boppam ci biir parti ñu dindi benn combat mooy bañ a dem ci parti ñu ñuy teg commission de la jeunesse maanaam teg benn commission pour ndaw ñi mais quand est-ce que la nag mag en fait un jeune mun a nekk secretaire général d'un parti kañ la ndaw bi di gis moroomu ndawam ma gis jaw bee di au moins ma encouragé ko nekko ko non fonce toi vas-y mais tey jaw bee di man gisee day nekk sama obstacle pourquoi parce que ndaw lañ maa koy soxare et benn pas muskalaf dina jóge fële ñëw ci ñun ñu nangu mu jiite ñu alors que ñooñu wuñ sax vingt cinq pour cent de la population ñun ñooy soixante quinze pour cent de la population aujourd'hui tey population ndaw la ñu am ñi dem ci biir parti yi pour jiite parti mais pas pour dem ci parti yi pour nekk ay suiveur kese loolooy indi lii ñu wàcce ci kaw tëli yi ñuy taal ki yàq ki toj ñun ñooy saagante suñu biir ñun ñooy xeexante suñu biir ñun ñooy yàqalante suñu biir après ñun ñooy dellu nekk doomu baadoola boo xamante ne tey au moins bu politicien bi nekk di laal ay milliards ñun duñu laal sa benn cent mille francs ñu ne noo kaan vigilance jusqu'à quand tey jot na ñu ndaw ñu au moins ñu accéder dans les instances de prise de décision te c'est un combat que je lance pour élection yii ñu jëm muy législative j'aimerais que ne ndaw ñi ñu wut ay parti yoo xamante ne dañ si bokk waxuma la ñuy bokk comme par exemple ndaw naan man Pastef laay àndal wala man non Diomaye non da ndaw ñu wuti ay parti ñu ne ñii ay parti ndaw ñi lañ ndaw ñi fexe wut seen député ñu nekk à l'Assemblée ñu xam ne ndaw ñi ñu ngi ñëw ak fugg ba pare mais beneen bi mooy ndaw ñi réclamer à ce que ay projet de loi yu fa tegu pour que ne lay on va revoir la constitution du Sénégal boo xamante ne tey dina jox ndaw mi ak ak yellef bi mu moom ndaw ñi banañ nekk benn simple spectateur kese benn simple suiveur mais mu doon des personnes yoo xamante ne dañuy nekk acteurs vers le développement du pays donc bref je jërëjëf laa lay wax xam nga lu tax yow tey au moins nit ñi bëgg ko wala ñu bañ ko monument nga ci Sénégal xam nga lan mooy monument c'est un quelqu'un qui tey say passe-passe yëpp sellul sa débat yi ngay def yëpp ça tourne autour du pays même si tu n'es pas dans le pays même si tu n'es pas au Sénégal parfois da gis ne sa xel mi sa xol mi sa xalaat bi yëpp lan lay nekk mooy nan ne waxtaanee Sénégal mënoon nga toog nag ci gala yaabe noon nga toog def ci la neex comme keneen ak keneen nu mu koy defee mais chaque jour yaa ngi fexe indi ndaw ñi au mois ñu toog nekk un di débattre sur un sujet de débat xam nga tey nag noonu pour man sincèrement lenn la ñu war a mën a dépasser bañ a nekk rek ay sujet de débat mais c'est-à-dire tout pour moi sans moi et contre dama jàpp lépp looy def kali pour man te defoo ko ànd ceeg man mooy da nga koy def contre man ay pexe la dama yaakaar ne li ngay def pour man dama nga cee wala boole ba mu jeex maa boole ci sama bopp mooy que ne ndaw ñi accéder dans les instances de prise de décision et ci si élection yii ñuy jëm la kër mooy parti yi ngeen bokk bu leen voté boycotté leen ko taxaw ne Sénégal vote du fi am mënoon ngeen yàq yéen a doon ngeen yàq ngeen ne vote fi am lu tax vote du fi am par la force parti yëpp na am ndaw ñun ñoo ko exiger nañu changer loi bi dem leen taal su boobaa nag taal leen Sénégal yàq leen Sénégal ñu xam ne ndaw ñu ñoo jug riposte ñu ne lan ñu ñuy riposte mooy ndaw ñu ñoo soxla ñoom ci boppam mag ñi nañ dem toog ay toog boroomi bijjaaw boroomi muskalaf ñoo xamante am na ñeenti soxna jël alal ju doy wuñ ko dara ay milliards lañ am seen compte amuñu benn investissement bu siy def tey au moins ñun ñoo a accélérer dans les instants de prise de décision ñu weccante ay xalaat suñu biir jiital suñu morom suñu morom yooyu ñu am pas-pas ñoom am yaakaar ci ñoom peut-être ñoom ñu mën a développer Sénégal bref je m'arrête ici je dis jërëjëf jërëjëf ah, naa nga ñëw sama fidèle daf yàlla yàlla jaajëf avocat bisimilah. coach euh, man de kal li ma gis ci yëf yi mooy jeunes yi il faut ñu divorcer ak politiciens yi tant que divorcé wuñu ak politiciens yi te xam ni politiciens yi mënuñu yor seeni avenir seen avenir ñoo ko war a yoreel seen bopp ni ko coach mi waxee divorcé wu ci ak politicien yi demal seen bopp assemblée nationale fee am nañ fa baat. ministère yi aussi am nañ fa baat mais da ngay xool ministère yi am ban jeune moo fa nekk ana rek kan moo fa nekk ci jeune ña fa nekk ñëpp ñoo mag jomaay mi nekk suñ président Faye pour lan loolu te ay jeunes yi nekk fii jeunes yi ñoo porté combat bi ba ñoom ñu falu jeunes yi ñu di leen di teg à côté pour quelle raison jeunes yi ci dee. kii dama la doon bëgg a wax sànq bi ngay lim ñi dee te mujjul fenn Babacar Seye mi nga wax noonu ki ka rey muy eh, ki ñu cité ci ñi ko rey quoi muy Clédor tey mi ngi ànd ak ñoom Ousmane Sonko bu dee tëj rek la ku ñu rey ñu tëj la kon Clédor moomu prison ba tey génn gu fa kon ñu xam ni loi amnistie bi ñu voté bi Macky Sall def à huis clos ak ñoom ba ñu d'accord ci ba ñu voté ko dellu gannaaw mënu cee amaat fii ba seen cinquants yi di jeex loi boobu bu leen Ousmane ko waxee ni que dinañ topp enquête bi rek xam ne da leen nax comme ni mu leen naxee ci dans tout les plans surtout les plans ne leen dinaa wàññi dund gi su ma yéegee dund bi gis ngeen niñ ci wàññi ne leen aussi su ma ñëwee dans deux mois dëkk bi dina neex ba kenn dootul jëlati gaal gis ngeen fu mu fu mu toll su ma ñëwee leneen ak leneen ak leneen gis ngeen fu mu toll ba tey li ñu diggee woon ba tey dara changé gu ci kon nañ dindi seen bopp nii kenn mënut a topp ña rey xale yooyu ci affaire justice kenn mënu leen ci topp ak Macky Sall bi ñuy wax ni te dañ koy woowi ji il faut ñu andi Macky Sall dañuy marche pour ñu andi Macky Sall ci dëkk bi ñu juge ko loolu Ousmane Sonko sax du ko xalaat sànq am na ku ne Amadou Ba dafa bon moo tax mooy euh, xaw ma nu mu tudd kii fi nekkoon sànq rek moom mbonu Amadou Ba moo koy wax mais Ousmane Sonko du wax mbonu Amadou Ba ndax xam nañ fu ñu jaar ñoom ñaar. mooy toog fii di wax mbonu Amadou Ba mais Ousmane ko ci boppam en person di wax mbonu amadu Ba féete na ko fu ne kon jeunes yi nañu yeewu ni ngi leen ko waxee rek nañu yeewu bëggante suñu biir te xam ni Sénégal ñun ñoo ko war a yore mais pas ay mag yu dem ba dikk ñoo mën a yor suñu Sénégal mu neex tey da ngay rey sa bopp pour kenn mu dem nekk ci noflaayam kenn nekk ci yaataa yumbeem yow mi baadoola bi nga delluwaat ci baadoola ga nga newoon ci coono ga nga newoon ci jaayum dàll bi nga newoon wala ci jaayum gerte caaf ba nga newoon boobu xeex nga ba sa yëre yi xotteeku sa deret tuuru sa lu ne tuuru te amoo ci dara dara dara dara amuloo ko ci nga delluwaat ci li nga newoon kon xeex bi ban njëriñ la am. man dama yaakaar ne suñu carte d'identité nationale moo war a nekk ak suñu carte électeur moo war a nekk suñu suñu ngànnaayu xeex bu vote jotee ñu dem ñu votel ku ñu bëgg. delluwaat ci kër yi ci jàmm ak salaam bañ a xeex bañ a yàq bañ a lakk bañ a def dara ndax amul dara lu muy faj ab Abdou Diouf ba léegi Senghor ba léegi nit ñaa ngi xeex lan moo changé Sénégal ana lan moo fa changé dara changé wu fa en 2000 bi Ablaye Wade di jël réew mi tamit c'était pareil lan moo fa changé dara changé wu fa Macky Sall ba muy jël tamit c'était pareil ba tey Ousmane Sonko ak ba ñuy jël tamit c'était pareil kon lu fa changé dara changé wu fa il faut ay bakkan ñooy rot bakkan yu rot yooyu njëriñul dara ci Sénégal taxul jeunes yi am lu ñu bëgg ba tey la ñuy gën a mën a jël gaal di dem kon lan mooy problème bi du ñu mën a yeewu tuuti nañu yeewu tuuti nekk ay nit te xam ne xeex bi fajul dara yéen bu ngeen xeexee pendant combien d'années ba tey li ngeen bëgg ci xeex yi dañu li ngeen bëgg amoo leen ko ngeen war a changer stratégie te xam ni xeex bi liñ leen di wax seule la lutte libère dara dara la libéré lu dul ay bakkan te du ngeen ci am lu ngeen bëgg. am na solo Tali maa ngi waaw maa ngi ci. jërëjëf maa ngi lay tàggoo nag. di tëddi nag bu suba ak parce que guddi yàlla ok ñoo ko bokk.